Euh, ñu ngi koy wax sànq li nga xam ne ni mooy démb son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye présidé na en tout cas premier conseil supérieur de la magistrature ci loolu mu am ndogal yu bari yoo xam ne bàyyi ko na fa ku mel ni ki nga xam ne mooy Mamadou Seck nga xam ne moom moo doon juge au tribunal de grande instance nga xam ne dañ ko nommé avocat général près la cour d'appel de Tambacounda ki nga xam ne tamit moo doon doyen des juges Maham Diallo moom tamit euh, yóbbu nañ ko fële nga xam ne mooy Tambacounda en tant que président de chambre à la cour d'appel waaye kii di itamit l'ancien procureur mooy Abdou Karim Diop n'est-ce pas donc moom it yóbbu nañ ko euh, fële ci Tambacounda ñu name ko en tout cas avocat général de la cour euh, près de la cour en tout cas d'appel de Tambacounda ñu bari ñu ngi wax naan ah mel na ni nag son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa mel ni sanctionné na gars yi mais nag sanctionné leen sanction bu métti ndax boo leen boolee ñoom ñëpp yóbbu noo leen Tambacounda loolu nag métti na yow naka nga jàngatee loolu. waaw xam naa ni man déjà lu ma bett la ndax am na ci information yoo xam yaa ma ko yónnee léegi nii. Mhm. c'est vrai que am na ñu ma yónnee information yu démb. Mhm. ak euh, document PDF yi ak euh, euh, li aju lépp ci mutation yi xam ni am na. Mhm. waaye dama jàppoon ba jotuma koo xool. waaye mel na ni Tamba am nañ ay gan. <laughs> Ah, am nañ ay gan de. Eh, nuru na ko. <laughs> waaw mel na ni Tamba am nañ ay gan. Ah. Eh, Tamba nag ci Sénégal la bokk. dëgg eh, ba tax na xëñ na képp kuy liggéey ci administration mën nga fa dem. Mhm. mën nga dem ci yeneen i gox itam. Mhm. en tout cas xam naa li yitteeloon askanu Sénégal ba tax nit ñi sacrifice yu bari ñu def ko. Mhm. bokkoon na ci lu nit ñi seetlu mooy. une justice à double vitesse. Hmm. boo xam ne dafa amoon ci réew mi. Hmm. te nit ñi mujj dem ba mujj sonn ci. risque bu nekk wala sacrifice bu nekk. Hmm. nit ñi mujj finalement jub jël ko. ngir ni lii dafa war a arrêté dafa war a dakk. ndax xam nga réew bu amul justice. bu équitable justice bu équitable réew moomu kenn mënu fa dund. dund fa sax risque la. Euh, danger la ba tax na kon. wax dëgg yàlla man ci sama gis-gis jàpp naa ni la priorité des priorités. Mhm. wala bokk li gën a jan ci priorité yi. Mhm. en tout bokk na ci ñaari gën a jan euh, ci sama gis-gis mooy justice bi moom ñu réformer. ñu réformer ñu réformer ko te réforme boobu nag. lu mhm. problème mu texte rek. tout à nit ñi nga xam ne ñoom ñooy administrer justice bi nag. ci lañ bokk aussi lañ bokk ndax ay nit ñoo xam ni. Euh, dañu am euh, yat bu ñu teg seen loxo. te mu leer leen ni fi mu ne ku mu dal sa kaw mën na la gaañ. Mhm. ba noppi tamit mën nañ koo dóor nit mën nañ koo mën nañ cee gaañ nit ci ci ci ci loo xam ne commande. Mhm. daanaka politique lay doon ñu danger lañ doon ci société ba. Mhm. yaakaar naa ni am na ci ñoo xam ni mérité wuñ sax ñu réaffecté leen feneen. feneen dañ leen war a génne tout simplement ci circuit justice bu fekkente ni c'est avéré loolu am. effectivement euh, en réalité. Euh, te vraiment ce qu'on a vécu au Sénégal. dernièrement may man toujours damay wax ni du dernièrement rek. Mhm. depuis presque bi Sénégal amee ba tey jii. tout à euh, loolu bokk na ci rupture yi ñu war a gën a njëkk a jëmbal. Mhm. Euh, mu taxaw te loolu it gage lay doon ci réew mi fi mu jëm baax na. tout à Bamba xanaa mhm. gisoo ni. Senghor. il est vrai que euh, dañuy wax toujours dañuy théoriser la séparation des institutions. wala boog de pouvoirs. tout à fait au Sénégal. Euh, mais man man man man man man gëwuma loolu ñi fi jaar ñëpp. Mm, mm. defuñu loolu ba tax na lii. dafay mm-hmm. dolli yaakaar ci effectivement séparation boobu en tout cas danañ ko mm-hmm. acté. danañ ko acté dana am xam nga lu mu. dëgg la président Senghor. Mm-hmm. xam nga justice euh, euh, à travers bi assemblée nationale crise boobu amee à l' assemblée. justice lañ utiliser. waaw ah. tëj Mamadou Dia. n'est-ce pas mm-hmm. euh, bi ñu Abdou Diouf ñëwee itam la même chose la doon def bu ko neexee yóbbu Abdoulaye Wade kaso andiwaat ku génne nangam ak nangam mm-hmm. dem di dem ak ñëw ñuy bàggante mm-hmm. ci loo xam ne bu leen neexee téye ba mu neex la sax après ñun la defoo dara defal la benn ordonnance de non-lieu bi Abdoulaye Wade ñëwee tamit yaa ngi fàttaliku affaire Idriss Seck bi affaire Macky Sall bi ak yeneen affaire yu bari yoo xam ne da ngay gis ni lii nit ñiy administrer en fait cette justice là dafay Euh, léeg-léeg am na. Mhm. lu ñu mënta layal ñoom. Mhm. te ñoo ngi koy def il suffit une commande politique am rek la machine judiciaire comme ni ñu koy waxee ñu activé ko véritablement ñu faagaagal ci ay nit yu bari. Mhm. loolu am na waxuma nag ni ñoom ñëpp a koy def ndax quoi qu'on puisse am na ay magistrats yoo xam ne yu intègre yoo xam ne naka jëkk ils ont su dire non ci ay commandes yu mel noonu euh, waaye bi Macky Sall ñëwee nag ci la yëf yi gën a jéggee dayoo en réalité nga xam ne bari na ay nit ñoo xam ne brisé nañ leen mm-hmm. bari na ay carrières yoo xam ne brisé nañ ko mm-hmm. mm-hmm. barina ay nit ñoo xam ne toroxal nañ leen bari na nit ñoo xam ne jaay nañ leen doole te loolu lépp mu ngi aju woon ci benn bon vouloiru kenn nit kese mooy ni kii neexuma ou bien sa tête ne me plaît pas wala son visage kon léegi nañ ko nañ ko anéandir te bu boobaa appareil judiciaire bi la ñuy activé waat wala boog li ñuy wax machine judiciaire bi mhm. su ko defee ñu faagagal ay nit loolu nag moom moo mhm. war a dakk moo war a jeex ñi yor justice bi dañoo war a xam ni c'est vrai que ni doole ju bari mu ngi seen loxo mhm. mais bu ñuy jëfandikoo ci seen intime conviction kese la war a doon maanaam kii ki ma falak ki ma falul ki nekk pouvoir ki nekk opposition ki ñu xam ak ki ñu xamul ñëpp ñoo war a yem ci ñoom d'ailleurs justice xam nga balance boobu moo koy symboliser sax kon a war a yem ci kanamu justice waaye da ngay gis nit ku ñu néewal doole. Mhm. mosoo dégg Sénégal ñu ni la diw sàngam danaa la duma te sa sama loxo du la laal. la laal ci lu wér loolu kay chaque jour kay nga dégg ko. ah ma ngi noonu. loolu rek kon tegtale loolu lépp. kon nag alhamdulilahi rabil alamin ñun euh, lu ñu bëgg mooy. une boo xam ne si dafay équidistante ci lu mu mën a doon une justice boo xam ne si dafay équitable ci doomi sénégalais yëpp citoyen yëpp yamale mm. leen doomi président ak doomi baadoolo bi yem ci kanamu justice nga xam ni parti pris ak mm. favoritisme du ci am loolu daal vivement pour loolu te yaakaar naa ni ci lii lay tàmbale nag macha dëppale texte yi ak suñuy réalité waaye nag nit ñi it ay nit ñoo xam ne ñu intègre lay doon ñoo xam ne kenn du leen defal commande véritablement ñu faagaagal ay doomu aadama mu mel ni sëñ Ababacar loolu dafa mel ni mën nañ sa am yaakaar ndax bu ñu gisee ki nga xam ne ni mooy le nouveau procureur de la république muy Ibrahima Ndoye ah bu ñu gisee son excellence euh, wala bokk ci ci li génnee ci conseil supérieur de la magistrature ñu nommé ko maintenant n'est-ce pas donc euh, procureur général euh, de la république mel na ni loolu ngay junj léegi mën nañ ci am yaakaar. ah bien sûr mën nañ ci am yaakaar parce que le procureur nouveau procureur de la république Ibrahima Ndoye. Mm-hmm. Euh, c'est vrai que bari na ay jaar-jaar mais man bi ma gën a marqué ci moom mooy le dossier Baratal loolu c'était du temps du président Ablaye Wade effectivement alors gis nga li mu waxoon publiquement donc euh, am na lu ñu ko sant dëgg waaye nag moom gëm na ni kii deful dara kii deful dara euh, ba tax na Baratal dañ ko bàyyi woon alors lu mel noonu nag hmm. lañu soxla ay nit ñu intégré noonu nga xam ni ak lu mën a xew ak pression bu mën a am ñoom li ñu jàpp ni mooy yoon rek la def te loolu rek moom lañ fa bàyyi lu mel noonu kon su fekkee kooku mm-hmm. mooy procureur de la République actuellement mm-hmm. euh, ñoo koy ñaanal yan bi woyof di ko ñaanal fa mu nekkoon mu kon ne nekk ci lool mais vraiment di la tout l'appareil judiciaire l'appareil mu mel ni pour évacuer question bi rek kon mën nañ am yaakaar ci li nga xam ne ni mooy reddition des comptes ndax su fekkente ne en tout cas def nañ changement d'abord ci nit yi nga xam ne nii ñoom ñoo war a porter wala ñoom ñoo war a euh, rendre cette justice la kon mel na ni kat ah li nga xam ni mooy reddition des comptes kon mën nañ am yaakaar ne moo si topp. ah mais loolu cela s'impose. la reddition des comptes moom. Ah, ah. kooku cela s'impose. cela s'impose te nouvelle autorité yi xam nañ loolu. cela s'impose. Mm-hmm. gis nga waxuma la euh, Sénégal ñii ni ñu ko yàqee. Mm-hmm. ils ont travaillé à appauvrir en fait le pays à appauvrir le population loolu nag kenn waru ko bàyyi mu jàll comme sax xam nga nit booy baale da ngay baale loo xam ne dañ la tool mm. mais lu ñu maasee tool ñu ñëpp loolu kenn sañu ko baale ba tax na kon la reddition des comptes maanaam loolu cela s'impose dañu war a régler waxuma nag nag ñu singali kenn wala ñu jaay doole kenn tuuti waxuma loolu mais képp koo xam ni mas nañ laa dénk euh, walla am responsabilité boo xam ne am nga ko ci réew mi te ñu gis ginnaaw bi ñu saytoo ni ay looxoor am na wala def nga ci jalgati yoo xam ne ëpp na mais kooku dañ la war a teg ci yoon. xam nga pourquoi. pourquoi. pour jubbanti d'abord. parce que loolu du yoon. loolu jëmewul euh, euh, am réew kanam mais pour jox aussi un signal fort aux mhm. euh, jeunes. Mhm. ak population yi ñëw ëllëg génération yi ñëw. que ni lu ñëpp maase bokk. Mhm. ak maandute lañ koy saytoo. kenn du ko jaawale ak lu nekk sa jëmay boobu mhm. message boobu dana foor mes foor goo xam ni. Mhm. kenn dootu ko fi ñemee. tey tamit ay sanctions yu exemplaire moo ci war a tege yoo xam ne nit ñi bu fekkee ragaluñu yàlla. rusuñu yi tamit nit ñi nga xam ne lañ séqal ba li ñu leen dénk ñëpp maase bokk ñu yeneen ci ak maanu tey tamit mm-hmm. mais ñu teg fi yar boo xam ne si ku defati leen li yar bi dal la ba mm-hmm. ku ca jege sax yar bi dalaale la su ma ne ku ca jege nag mooy ku bëgg àndoon ak yow yëf yi waaye wala mu jàpp ni euh, kenn waru laa laal kuñ fi war a protéger amu fi personne en tout cas man daal ci sama gis-gis république bi moom buñ ci xisee nekk ñëpp a maase yem fii mu toll yu tamit euh, ci Euh, suñu contexte actuel bi mhm. réforme euh, mi ngi tàmbalee ci lii wala boog dara gën a ko tee jën muy la justice mhm. te ñii ma gis notamment le procureur de la république ak peut-être ñeneen ñoo xam ne tuddoo leen sax mhm. loolu wax dëgg yàlla yaakaaru na ci danañ dem jusqu'au bout en tout cas de la de la reddition des comptes macha saaru système law daal boo xam ne bés ci jaaree léegi ñu indi fi ay boroomi xam-xam yoo xam ne moom ñu moom ñu am talent la ñu doon ñu mat li ñuy def ñooña bu ko defee ñu dugalaat leen ci wutalaat leen daara yu mel noonu ñoom it ñu toogaat di formé waat ndax ne daara ji day tàmbalee benn bu yàggee mu dem ñaar bu yàggee mu dem ñett bu yàggee mu dem ñeent bu yàggee région bu ne mu am fa bu yàggee département bu ne mu am fa léegi projet boobu fan la ñuy jaar ba taxawal lu mel noonu waqfu la ñuy taxawal lan mooy fu waqfu fu mooy li nga génnee ci sa alal joxe ko fii sabilillah te njariñ li man fii nekk di continuer di dem loolu mooy waqf loolu mooy misaalum waqf mooy yow bi ngay dund yi lay mën a jox tuyaaba yu bari la bokk na ci julli yi ngay julli woor yi ngay woor tudd yàlla yi ngay tudd yàlla jàng alquran dox mbokk lépp lu baax rek mais yooyu boo faatoo day dagg léegi nag lan nga mën a def loo xam ne moom da ngay faatu nag mu di la génne indil ay tuyaaba comme keneen na ko société mbay indile bénéfice mm-hmm. mooy def waqf mooy fob ci sa alal alal ju mën a doon nag nga joxe ko fi sabilillah comme nga joxe ko ci projet bii man bu ma amoon tey xaalis boo xam ne dama koy def nga xam damay xool fa ma gën a mën a gën a indil tuyaaba ci bii ci bii kon mbokku jullit yi yoon a ngi nii bunta ngi nii boo xam ne ñun ñëpp bëgg nañ nekk ay milliardaire yawmal qiyaam képp koo xam ne sa xol bëgg yàlla moo ci nekk ak bëgg yonent bi kooku buñ la ci wooyee moom danga naan woo nga naar bi ci goxum soow dangay ñëw ne ko kay man maa koy njëkki da nga ciy dem ba jeex def ci sa alal def ci sa coona waaye doo ci yam yaay jug di ko campagne benn jullit bu nekk laa soxla rek mu jël portable am dugg ci compte moo xam Wave la wala orangement Money loo mën yaa xam bu dee mën nga 1000 francs ak loo ko ëpp defal waaye amaana koo xam ne sax 1000 francs dana bari ci moom amaana ab 500 la am amaana fukki dërëm bu ko ca xeeb bokkal alaxira kat bu yàllay fay ku bokk rek mu boole la ci kon aw juróom nga am sax sànnil man dama ne naa ci bokk bay bokkaale gone yu tuuti yi waaye bul fàttee nag bokkaaleel ñi faatu parce que ñi faatu ndeysaan faatu nañ mais ba léegi yàlla ubbil na pour ñu leen di mën a bokkal ci lii kon gaawal bokk boole ci sa yaay boole ci sa maam boole ci sa nijaay boole képp koo xam ne faatu na rek te nga mën ko ci boole rek booleel ko ci waaye yow mi nga xam ne nag yàlla ubbil na la ci bunti wërsëg gaawal jël som bu am doole gëmmal moom gaaw sànni ko ci te dem sa yoon jëlal ñaari million def ci jëlal ñetti million def ci jëlal sa kër def ci jëlal sa pàkk def ci ëllëg àllaaxira ngay xam li nga def lan la